jaxata ngoog jëwriñ kilifa si liggéey de mbay peex gi ñëw mbay peex <laughs> waaw mbay peex maa ngi nii rek maanaam ñu yor bi ah fu toll bañ koo ñor bañ <laughs> ah, waaw waaw ayca ayca ñu ngi si ñu ngi si too tooyaa ngi ah am setoo modul min minteel bi ah minteel baa ngoog bu jeexe jeex na <laughs> waaw cere ma muso ay la may may ñaan maye <laughs> baalu bàyyi faalo ngoog ko faalo ngoog <laughs> bu kon la di ngeen buddi bu ñu woo teengaanam de mu gën a neex de waaw bu feeñ teengaan waaw waaw am na gën a tey ah bu nekkee 30 rek parce que bu ko passé waaw waaw gën dee nga am

waaw bëri na fi allah sana sana fa jóoba ngoog jë jëriñu jigéen La ilaha eh Paa Modou Paa Modou bàyyi liggéey bi te nag ñëw bàyyi téléphone nga ñëw liggéey bàyyi téléphone nga ñëw liggéey. man man man te moom daal. waaw jël naa kay moom. amin amin ci ñu ngi àll bi mais àll bi. yii yëpp daa war a daanu de yii yëpp garab yëpp daa war dafay war a jógee <laughs> ah <laughs> boo ko vidéo <laughs> yëpp war a yii waaw waaw moom kay jël naa kay moom <laughs> amin amin ci li ngeen àll bi mel àll bi yëpp daaw yii yëpp garab yii yëpp daaw dafay war a jóge <laughs> ah <laughs> boko video vidéo bi si groupe bi gars boko boo xool dinañ ñëw garab yëpp daaw dafay war a jóge yii da ngeen songu nga da ngeen songu bët <laughs> aw jóg gaa yi ñëw ma xool gaa yi jël leen dafay jógee. waaw kon bisimilah jërëjëf maam Thiam. ak Thiel Fallo sëñ ko la góor. moom laa xam lu mu tudd ci turandoo ji bati. ah moom amoon na bati. bëri na ah. yaa ngi mooy de ah. atia mooy ma de dama koy lii ba lii. Thierno voilà waaw. lii ma de Fallo. sëñ bi dañoo yërëm yërëm ñu xool garab garab yi daanu. maa ngi delloo antenne. boobu des na de. boobu est-ce que da ngaa reer kii affaire bi dañuy yëngu reer bi. jàmbaar suñ tubaab gi joro Fallou Diop. jàmbaar suñ joro ji. jàmbaar suñ joro ji. waaw joxal joxal joxal joxal ànd bu ne xëy na daal faa lañ nekk nii dara tey waaw. bon naa ko tombé yàqu yàqu dara ba ba sa Paama Seye di vidéo jàmbaar yaa ngi jàmbaar Serigne Touba yi di jàmbaar Cheikh Thiénaba Fall Diop mën naa bi ngee mbéygee ngi Cheikh Ibra Kane jàmbaari suñ Ceerno Fallu ak jàmbaari suñ Baalu Jóob yi ah, waaw waaw suñ seex nga ma sha Allah suñ ñu ngi nii ku baax ku غور بزن چی چی بزن چی چی یای فای چرنده

bul def lépp foofu gasal war ko Sadio foofu mu nekk fu see dañ ba pare ba ñu maa xam ne ma la fu see dañ ba indoo ma xoolal fii foofu am yoon yi. Setang, setang, setang, kemau cuma itu. Bagaimana video ini? Andaaya loo wax yow waa père yàlla waaw waaw Baye Fall bi waaw aha bu jeex a jeexale ah ma mooy yéen gis ngeen gis ngeen àll bi mu de lii baramin la lii ah ki ma si xam ak saa ndeysaan xamu xamu dugg ko ñëwaat xamu dafa jeexul waaw dafa jeexul. njaxat joxoon ñaaw la njaxat. njaxat foofu moom jeex na tàkk jeex. dafa des sax garab bi daa des sax nga xam ne fii. foofu des rek foofu dong la. ñu doon a hein ay jàmbaar ngeen de barke suñu Bàmba jàmbaar ngeen waaw billahi ay jàmbaar ngeen bu jeex a jeex de ah Fadio mi tax ci jeen faal aja aja murid aja murid na waaw waaw na ñëw ayca waaw li góor a waay. barke sëñ Tuubaa Mbàkke gis nga garab bi mën macha allah waaw waaw